Bah Diakhaté li ma am ci nguuru joomaay jàpp naa ne Bah Diakhaté amu ko ci nguuru Macky Sall te fanweeri felang tak lu topp police mënul woon tijji benn dossier ndax si moom tey jàpp naa ne sama taxawaay bi war naa wane ne Sénégal justice mi ngi fi te am na leneen lu gën a symbolique loolu mooy euh, Alhassane di militant Pastef dañ ko jàpp te pourtant moom saagawul da doon waaj saaga ñu jàpp ko euh, te ko loxo Euh, am na keneen ku ñuy wax Idi John War ci bi Diomaye nekkee président ak tey woo nañ ko ci yoon dafa def euh, dañ ko réglé rek mu jeex. waaye bi ko yoon soxlaa woo na ko malgré que kilifa la ci biir parti Pastef. Mhm. ñetteel bi koy def te mu nekk sax loo xam ne te la parce que xam naa sénégalais yu bëri yëguñu ko. Mhm. donte dañ ne Adama Faye rakku Marème Faye Sall la jàpp nañ ko. Mhm. may xamal sénégalais yi ne am na rakku Bassirou Diomaye Faye boo xam ne. Euh, ñu ngi koy wax Maysa Faye Maysa sa fay ñaaw la dëkk di rakk ci Basiiru Joomaay maanaam seen euh, euh, seen rakk ci doomu baay lañ maanaam ay doomu baay lañ ku ñuy wax Aïssatou Diop Fall moo ko porte plainte ci affaire xaalis mooy kii liggéey TFM ki ma gis ñuy wax bërki fan ñu ko doon dégg kooku rakku Joomaay mhm. ay frère ay frère lañ maanaam ay ay ay mag rakk lañ ci rakku doomu baay mhm. Euh, bi nga xamee ne Aïssatou Diop Fall daf ko porté plainte mu ñëw wuy si kat ci police euh, ñu am enquête enquête bi doyul procureur dafa garde à vue rakku Bassirou Diomaye boobu di Maysa Faye mm-hmm. Bassirou Diomaye dafa wax maître Moussa Sarr mi nga xam moom mooy avocat président de la république Bassirou Diomaye mm-hmm. daf ko daf ko daf ko sant rek mu ñëw taxawul ko ab ab client mm-hmm. a rakab bi mu ñëwee taxaw en tant que avocat mhm. dañ ko garde à mu fanaan ci karo yi bi mu xëyee dem tribunal dem dem dem commissariat dem dem ca parquet ba mu nekkoon affaire xaalis ak lii nga may fay lii laa lay fay ñu mujj maître Moussa Sarr mi moo taxaw régler problème bi ñu fay mu jeex mhm. te kooku rakku Basirou la parce que ñoo bokk seen bàyyi ñoo bokk kon euh, defe naa ne loolu rek war naa mën a am joxe exemple bu mag mhm. parce que ku nekk xam na ne tey ki ma indi fii man Mm-hmm. opposition la bokk muy Thérèse Diouf Faye mm-hmm. ñun opposition bi dañu daan traqué di ñu jàpp mais daawuñu dugg ci kaso tribunal ci ci commissariat yi di plainte kenn te ku nekk gis na plainte euh, contre Mimi ak euh, Mansour Faye mm-hmm. plainte contre diffamation euh, Aïssatou Diop Fall journaliste la mais taxawaayam ci nguuru ci ci ci kanamu ñoom Ousmane Sonko lu ñu xam la te moom bi muy plainte sax jàpp na ne mënul pelant membre famille Diomaye di ci am di ci am dëgg parce que ku ne gis na ko fan yii am na yaa ngi ko dégg mu naan booy bi pelant naa ko waaye Sonko moo booloke na ngeen ma ko baal moo booloke ndayu pelant bi loolu ñëpp déggoon nañ mhm. pelant boobu mooy rakku mbokkum Diomaye Faye moom loolu la doon wax mhm. parce que jàppoon na ne du mës a taxaw ñu jël rakku jomaay di ko teg kenamu yoon moom ak ñoom ñaar te pourtant yoon mhm. woo na ko garde à vue ko mu fanaan garde à vue c'est loolu nag six mois ci ginnaaw mhm. ku waxoon ne leen rakku président de la république mën nañ ko fanaanal kan moo ko fa fanaanal ñu ne ab opposant dañ naan loolu mënul nekk mhm. par exemple rek man ma demoon fanaanal Aliou Sall garde kenn xalaatu ko woon mhm. donc kon lu ñu waroon a dox cinquante ans loo xam ne man bu ñu ma ko laajoon dinaa ne bu ñu xeexee fii cinquante ans Sénégal dina yegg foofu ñun dox nañ deux mois tey mën nañoo wax ne loolu am na Sénégal mhm. suñu jëlee Adama fay mi nga xamante ne tey jii euh, donte génn na mais fanaanam foofu am na lu muy représenté parce que mhm. yooyu yëpp ay pelante la yoo xam ne dafa nekkoon ci tiriwaal yi kenn ñemewu ko ubbi mhm. bi dëgg ñëwee rek la loolu mën a ubbeeku ku ne gis na suñu ministre de la justice bii di Ousmane Diagne pelante Ousmane Sonko la wax ne nañ ñëw ñu déglu ko rek matul ñetti fan ñu jële ko ci poste kon donc nit daf dof nday rek benn commissariat mosu taxaw mu ñemee woo kon hmm. dañ naan xam ne loxo bu jubadi dafa nekkoon ci yoon hmm. loolu nag xeex nañ ñun sénégalais yi ba dindi ko ba loxo ba loxo loxo bu jubag bu jubatul amatul yoon moo libre bi def liggéeyam hmm. man loolu moom moom laa mën a euh, loolu daal moom laa mën a wax loo xamante ne Euh, euh, dinaa ci mën a dugg. parce que d'accord sa sa diggante actrice tey fu mu fu mu mujjee. <coughs> bëggoon nañu sama diggante actrice. waaw ah. am ay avocat xam naa ñoom dinañ ci mën a wax parce que comme affaire dossier la. dama ci mën a wax lu bari. mais daal en tout cas man maa ngi dalal xelu <coughs> ñi nga xamante ne surtout man waa Pastef sax laay wax. Hmm. man xam ngeen ma. ça fait longtemps maa ngi def ay ay émission di wax. bi hmm. wax di jafe ñu may rëbb saa ba may wax. Euh, commissariat yëpp di ma dégg. Hmm. laa daan wax ba taxaw fi bërki démb wax naa leen fii que ne leen Farba Ngom am na 600 terrain. Hmm. su ngeen dégloo émission boobu wax naa leen ne leen. Hmm. jërul jomaay bi yàkkamti ñoom ñëpp coowul suuf moo leen di indi ci commissariat yi. Hmm. defe naa ne bu ngeen ko reexool di ngeen ko gis te des nañ yeneen. man yàlla natuwuma may faral di waxe suma bakkan wala may wax lu ma xamul. voilà man nag bi may dugg ci bunt bu mag bi laa jaar gis ngeen ma. ki jaar ci paxu kañe yi dugg jaar ci paxu kañe yi génn kooku bu lu ko neex. dina ñëw fii wax a yéen. Mhm. parce que xam naa na mën a micro. Mhm. waaye nag amul problème ñun li ñu war ñi ngi ci. incha allahu taala daal amul lenn lu nga xam ne dinañ ko wax te leeruñu wala ñu dem ba ci kanamu yoon ñuy layam layam yi. li si biir enquête bi nag man mënuma si prononcé. Mhm. dama koy bàyyi ak suma ay avocat li si mën a wax ñu wax. alors ñu ñu déglu Moussa Moussa Sarr bu ko defee itam mu daal di ñëwaat. Maître moom a gën a ancien moom. alors maître ginaaw sa client bi ñu ko libéré après audition. kilifa euh, mën na ñëw nii tuuti. ah cheikh bi ñëw nii tuuti voilà ñëwal nii. sa client libéré nañ ko après audition lan nga ñu mën a indil comme information ak na la demee. waaw li ma ci mën a wax. moo di ne mbiru enquête. Mhm. secret moo ko la. Mhm. amuloo sañ-sañu dem ci enquête. Mhm. na génn ci biti. wax lii lañ laaj sama client mhm. lii la tudd mhm. li am solo daal mooy mhm. ab sénégalaise nee na suñu client daf ko tooñ daf ko waxal lu amul convoqué nañ ko comme ni mu ko waxee en tant que citoyen ñëw na fi lañ yendu ñu déglu ko mu indi ci ay tontu yu mucc ay joxe ay firnde enquête bi pare na ñu ngi toog di xaar lan la yoon di wax ëllëg foofu lañ ci mën a yem day d' accord kon yi fi taabul géej yéen ngi dégluwaat enquête non mënuñu wax ne taabi na géej d' laaj nañ ko. Mhm. tontu na def nañ confrontation li ci des dañuy bàyyi suñu bopp xaar li yoon di wax après. Mhm. mais en tout cas déglu nañ ko bàyyi nañ ko mu ñibbi kër. Mhm. d' accord lan ko doon mooy dafa waxal nit lu amul. te lañ ko jeex na mais lañ fa wax moom mënuñ ko wax. parce yoon daf ko teg. waaye li am solo daal. mooy tontu na tontu yu mucc ayib indi na firnde. d' accord maanaam noo gisee itam ni yoon di doxee. bon alhamdulilah. Euh, régime bu boy euh, régime bi mu ngi door a ñëw ça fait deux mois. mais comme ni ko Cheikh Bara waxee léegi. Hmm. gis nañ ci ay soppeeku. ñun. bi ñuy xeex depuis trois ans. ñuy jaay doole waa Pastef. di hmm. jaay doole activiste yi. Hmm. di jaay doole journaliste yi. lépp li ñu doon bañal ba di denc suñuy client ay atu kaso fukki weer ak benn kaso. tey yoon bi ko bañoon nangul na ko ñeneen. kon ça prouve que ñun. dañuy doxal dëgg. Mhm. Cheikh Bara ngi ni. Mhm. amul lu mu dajul ci xeex bi. Mhm. et pourtant dañ ko woo. te dafa war a wuy si looluy dëgg. yoon ñëpp la fi nekk. Cheikh Bara citoyen la man citoyen la mam Pathé citoyen la. tey ñëpp ngi ni waa Pastef yendu fi. indiwuñ wuñ benn problème mm. bare wuñ circulation oh, xataraay wuñ woo nañ ko déglu nañ ko mm. joxe na ay firnde joxe na ay tontu yu leer mm. donc jeex li ci des dañuy toog déglu yoon mais audition bi yàgg na dafa amoon ay complication non non amul complication c'est normal déglu nañ ko dafa am après confrontation tout s'est passé normalement normalement